bu ci njëkk xanaa mooy euh, di jaajëfe bu baax a baax les organisateurs euh, di wax que lu mel nii am na solo parce que le Sénégal est en deuil et on ne peut pas accepter aujourd'hui que face à un deuil national le gouvernement nous oppose un mépris à travers un silence complice dañ koy ñaawlu parce que ce gouvernement à sa tête le président Macky Sall sont les seuls et uniques responsables de cette situation et qu'on arrête de rentrer dans des thèses, des synthèses et des antithèses. Si le président Macky Sall n'avait pas vendu, pour ne pas dire brader, les ressources halieutiques du peuple sénégalais, ces pauvres pêcheurs iront exercer leur activité et non convoyer des Sénégalais abusés par l'Eldorado occidental. boo ci njëkk bu ci tamit nañu président Macky Sall wax. 39 milliards ba ko Union européenne jox pour lutter contre l'immigration clandestine lan la fas yéene def ak xaalis boobu wala fan la dugal xaalis boobu parce que loolu mooy wax ci c'est ce qui se passe maa ngi dégg un collectif bu ñuy woowee 480 480 yooyu mooy lu ñuy ñàkk ci ay doomu aadama semaine bu nekk kon nañu wax wax ji et j'invite une certaine presse à être un peu plus responsable wax leen ci waxu immigration clandestine bi te ngeen bàyyi dañu bëgg a nelawal avec des deals et des dealers qui nous intéressent pas parce que nous perdons chaque mois laa wax l'équivalent du bateau le Joola les 480 morts ont été enregistrés en une semaine loolu mooy dëgg bi nous sommes face à un drame national te kenn bëggu ci wax ñu nar a wax wax te wax wax ji te bañ a wax ji bàyyi xale yi ñuy wax xale yi defuñu dara juddoo ci réew dëkk ci réew màgg ci réew ñu ne boo fa tekki kooku neexul wax ji mooy lan nañu wax avec ce gouvernement te wax leen seen bopp ils ne peuvent pas justifier la signature d'un contrat immoral comme ce qu'ils viennent de signer avec l'Union européenne pour 10 ans pour un montant de 8 milliards d'euros. Ce n'est plus normal que des pêcheurs aujourd'hui qui mënuñu fa am jën lu ci lu des mooy lan mooy jël xale yu bëgg a bitim réew mooy et les convoyer loolu dëkk bi à qui la faute qui a vendu la mer qui a vendu le poisson c'est le président Macky Sall c'est lui qui définit la politique de la nation c'est lui qui a donné des instructions à son ministre de la pêche pour signer kon wax ji mooy lan mooy ndeyu mbill bi lu njëkk mooy jàkk mooy président Macky Sall kon képp kuy kilifa diine ñu ngi lay ñaan ci yar ak ci jàmm ak salaam képp kuy kilifa aada képp ku fi yàlla may baat nangeen ngeen wax Macky Sall wax ji wax ji mooy lan na bay géej bu muy jaay wax ji mooy lan mooy 39 milliards ba ko tubaab yi jox na wax fu mu ko dugal wax ji mooy lan mooy mënuñu nekk ci benn dëkk ñuy wax u pétrole waxu gaz il n'y a aucun transfert de technologie dans ce pays et il n'y a aucune usine de transformation dans ce pays et on demande à ces jeunes de rester au Sénégal ça ce discours n'est pas responsable on reste dans un pays dans lequel on peut vivre. On ne peut pas rester dans un pays dans lequel le seul avenir qu'on c'est de mourir la bouche ouverte. Je terminerai par dire que la priorité, ce n'était pas un terre. Bon, Macky di campagne, Moussoufi dit terre. Et avec son terre, il a mis notre avenir par terre. Je vous remercie.